match bi ñuy euh, dëgmal euh, Sénégal Algérie nga xam ne ñu ngi ko war a jouer euh, fukki fan ak ñaar fii ci stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio dafa nekk loo xam ne ci waxtaan ak suñu coach Aliou Cissé ak staffam ak ñun na ñi nga xam ne ñoo yor kuréel bi ñuy wooyee comité exécutif nga xam ne man maa ko jiite dañ jàppane ne yàlla tey fay na liggéey ba ñu mën a am ay ndam ci biti parce que bu ngeen xoolee bu baax xaj na tey yàlla loolu la tuddoon ndam bi ñu am ñu ngi ko amee Cameroun mu nekk loo xam ne ñëpp kontaan nañ si équipe bi ne di dox ba ñu dem dem nañ foo xam ne mu mel ni euh, Lisbonne gañe fa Brésil mu nekk euh, lu mujj ayib euh, ci résultat bi ak tamit ci façon biñ ko amee donc bu ñuy waxtaan tamit ñu jàpp ne tey yàlla may nañu. Euh, président Macky Sall jagleel jeunesse sénégalaise benn stade boo xam ne bu mujj ayib la tey bu ñu jugee si monde bi bu ñu cité stade yu gën a rafet moom ci la bokk te amaanam mënoo jël stade bu mel nii def ci koom euh, jagleel ko sa jeunesse te doo leen indil loo xam ne dinañ ko si mun dundee di ñëw di seetaan si state bi boo tax ñu ne léegi dañuy ut ay opposition yu ay yu xarañ xam ne yu ñëw ñu ñuy demee bitim réew di jouer saa yu nekk. Sénégalais yi mën jege seen équipe di leen gis di jege seen star yi muy footballeur yi euh, tey boo xoolee Algérie ak Sénégal koo ci tudd rek euh, star la muy euh, suñu côté ñoom Sadio Mané ñoom Kalidou Koulibaly ñoom Abdou Diallo ak ñoom Gana Gueye ak ñeneen ak ñeneen même ñi gën a tuut tànk ñoom Pape Matar tey boo xoolee ci équipe bi la tam même xaar kanam bi la ay joueurs yoo xam ne ñu ràññee ci àdduna sa ñoom Mahrez ñoom Feghouli ak ñoom Buneja ak euh, ñoom euh, Mandi ak yëpp ñoom ñoom ñu xarañ nañu ñëpp ràññee nañ leen si àdduna si boo demoon ci Afrique xam nañ leen Europe xam nañ leen yeneen continent yi xam nañ leen ñu dajale leneen indi fii ñu boole nag ñaari coach yi nga xam ne ñëpp nangu nañu tey mooy coach si gën a xarañ ci Afrique ci seen génération jamono yi juñ toll parce boo xoolee depuis diir presque mun naa jàpp euh, juróom-ñaar ba juróom-ñetti at ñoom ñoo fi wane loo xam ne war na jox tey mbégte ak euh, fierté bépp doomi Afrique ne tey mun nañu ñun woote ne suñu entraîneurs yi fii Afrique euh, seen morom yi nga nekk ñoo bàyyi ak yeneen gox goxaan yeneen dëkk yi yeneen continent yi yóbbul luñu leen dara donc ñu dajale leen fii match bi dafa war a am taxawaay bu mag dinañu xëj na wane match bi dans le monde entier parce que suñu partenaire RTS na ko génne mais li ñu namm mooy sénégalais yëpp ñëw feesale bi ñëw participer ci fête bi jege seeni star te mobilisation boobu la ñuy ñaan sénégalais yëpp ñëpp ñëw billets yi dinañ ko teel a génnee jaay ko xaj na euh, ñett ba ñeenti fan balaa match bi euh, balaa talaata mais li ñu bëgg a tam mooy sénégalais yi bi pa nañu euh, laal ci seen poos ñëw jënd billets yi parce que lu ci bare dañuy reproché chaque fois suñu billets yi ñuy jaay ak yooyu dinañ ko teel a génne ñëpp jënd ko te amaana sax jël nañu ndogal. que euh, maanaam bi yi ñuy tàmm di mayeeg yooyu dootu am parce que ñu ci bare dañ koy may ñoo xam ne xëj na euh, am na ñu kattan am nañu doole pour jënd ko te tamit dañu war a ñun suñu wàlla jàppale euh, xëj na football bi mais jàppale aussi suñu autorité ñu may infrastructure mel nii parce que tey suñu naataangoo bi nga xam ne mooy société bi nga xam ne mooy gérer stade bi def nañu réunion boo xam ne ñun match bu nekk bu ñu organiser match amical dafa am ñu leen di jagleel pour mu jëm ci li nga xam ne mooy maintenance ci bi ak toppatoo yi stade bi euh, setal stade bi parce que boo amee maanaam euh, bijou mel ni parce que suñu stade bi comme wurus la tey ñëpp dañuy fier ngay génn Dakar wala ngay dugg ngay dem aéroport di ñëw boo rombee guddi stade bi da ngay ngay maanaam am mbégte gan yi tam bu ñu fi ñëwee romb stade bi buñ ñu gisee dañuy si. Euh, félicité donc ñun ñëpp ñu siy kontaan mais stade bi ñun ñoo ko war a dundal parce que boo defee infraction mel ni te dundul organiser woo match day mais tamit loo gis dafa am nu mu tëree parce que des fois tamit euh, infrastructure mel nii pour nga mun ko yor il faut muy jur xaalis boo demee ci yenn dëkk yi yu mag yi en Europe seen stade yi pratiquement public bi ñoo koy dundal même délai bu amul match si dañu ñëw visiter di fay donc ñun li ñuy ñaan rek mooy en attendant xëj na lool ñu toll foofu nit yi bu amee. effort yu ñu def ba indi équipe yu mag fii def nañ ko fii ak Algérie ci talaata bii di ñëw le 12 septembre mais jàpp nañ ne fii ak euh, le 13 wala le 14 euh, octobre dinañu indi euh, Mali parce que surtout nañ ba am accord de principe Mali équipe tam bu mag la pour mun leen dalal fii lépp dañu bëgg a gën a jegeel suñu équipe nationale ak match yu am solo yi suñu public ñu ñëw ñu ko gars yi di dundee si télé ñu ñëw fekkee teewee ko ci maanaam stade bu mujj ayib. donc loolu nag ku ci nekk moo war a béy sa waar moo war a indi sa wàll te supporter ñu leen daaj mooy ñëw massivement certes mais jënd seen ticket koom boobu demul si poos si kenn day tax ñu mun entretenir stade bi tax ñu mun jël en charge suñu gan yi ñoo parce que ñun ñoo leen di ñu leen invité fii ñoo leen jël en charge lu bare bare léeg nga tegal leen ci xaalis donc loolu baaxoon na nit yi xam ko ñuy oo ñëpp ñu ñëw Sénégalais yëpp mobiliser ñu koy tàmm wane comme Sénégal Égypte ñu am cinquante mille spectateurs ñu pousse suñu lion yi parce que gagner Algérie day gën a fësal suñu taxawaay ci Afrique ak ci àdduna si comme ni ñu gagné Brésil comme jamono itam ni ñu gagné Égypte te loolu mooy objectif bi mais dans la euh, sportivité nag parce que suñuy mbokk lañu suñuy naataango mais si biir terrain bi ñu bañ a bay dara public itam jouer sa partition de manière comme ni ñu xamee mais comme euh, euh, kilifa gi ni mu ko waxoon si ay jamono biir biir diiri match bi teranga bi dañ koy teg fële. bu ñu gañee ba pare ñu delloowaat teranga bi ci place am defe naa loolu daal mooy message bi ñuy lancé ñëpp ñëw mais ñëpp a contribuer jënd seen billet parce que du am cette fois-ci maanaam yoon bi du ñu joxe ay billets gratuitement comme ni ñu koy tàmm def nit yi di woote may lañ ñu billet billet stade yi il faut nit yi ñëw jënd ko ndax football bi mën jëm kanam que ñu mën a aussi maintenir suñu infrastructure bi nga xam ne président Macky Sall ak gouvernement am ñoo ñu ko jagleel. billet yi moom euh, du cher parce que mooy maanaam dañu delloowaat rek billet yi nga xam ne. moom la ñu tàmm di def contre wanda moom la ñu defoon contre Bénin moom la ñu defoon match yu mujjee yëpp moom la ñu def parce que dañu bëgg mu nekk lu accessible si poos yëpp ku am euh, euh, xaj na 2000 francs mun nga ñëw dugg waaye ku bëgg tamit euh, parce que dina condition yoo xam ne yu mujj ayib la comme dans les grands stades dem si loge yi maanaam box loge yi ak yooyu bi yi nañ fi nekk société itam bu ñu buggee jënd ay box pour indi fa seeni employé yi ak seen i invité yoo xam ne xëj na seen i client lañu dina am boxe yu ñuy jaay yooyu yëpp c'est pour permettre ñëpp mun gis seen bopp see stade parce que équipe nationale bi fu mu toll euh, ci jëfu joueurs yi ak suñu coach Aliou Cissé dafa dem ba egg foo xam ne day nekk loo xam ne day symboliser lu rëy si Sénégalais yi ñuy wax facteur de cohésion sociale la facteur de de de euh, d'unité la defe naa ñëpp ci gis seen bopp amul xàjj ak seen ñëpp ko moom donc ni ñëpp ñëw partage moment yi ak euh, équipe nationale du Sénégal suñu gaynde yi nga xam ne ñëpp ràññe nañ leen si àddina si